père maa lay nuyu. waaw maa lay fay. maa ngi am jàmm. waaw maa ngi si bu baax a baax. kon ñu dégg li nga xamante ne moo xew ci blessure Modou Lo bi. mu waroon bëree le treize digganteem ak Ama Baldé. ñu jékki-jékki des ba combat des na quinze jours. ñu jékki-jékki ne Modou Lo dafa am blessure boobu mën nga ñu ci indil benn ci leeral. ndax nga ne ndax. mën nga ñu ci ci leeral ci blessure. waaw bon bi mu waree euh, bi mu nekkee en France euh, bi muy am trois jours bu mu war a ñibbisi ci la am blessure quoi ci ci contact ci la am blessure quoi ci épaule ci la am ci blessure quoi waaw. blessure bi combat bi ñu ci bari ci adversaire am kaaw Ama Baldé dem naa fa ñu ne Modou dafa jekkut ci làmb ji la moo tax mu mu porte blessure mais blessure bi du lu wér du lu am loo ci mën a wax. blessure bi moom lu wér la lu am la ñun moom kenn mësuñu xam ci ay tapale ay triche yooyu loolu moom yaakaar naa Sénégal xamee wuñu ko Modou ci loolu ñun mos am nañu ay blessure te di ko bëree waale mais niveau blessure yi ñoo bokkul quoi vraiment niveau bi blessure bi ak yi ñu daan am bu njëkk du benn moo tax euh, ñu bañ a bi quoi. di bëree am blessure ñu daan la nga ne damaa blessé woon loolu aussi rafetlu ma ko trop quoi moo tax it di ko ñaax di ñaax mbëri aussi ku ci am blessure nga déclaré ko xam ne da nga blessé mënoo bëree bu ñu rapporter combat ba ga euh, wér nga mën a bëree. ana Modou mi mi ngi fi. bi mu ñëwee ba léegi gisante nga. non démb démb heure bi rek démb ñoo nekk. démb këram laa yend waaw. bés blessure ci ni ko gisee ci ci ci ban moment nga jàpp ni quarante cinq jours wala un mois wala deux mois blessure bi mën na cee am tan xam nga man moom du ma médecin médecin mooy xam kañ lay mën a wér rek affaire yooyu quoi bon dañuy xool médecin bi li ko may bu demee ba euh, ba mu mat ñu xool ba xam dina ci mën a commencer entraîner wala yooyu quoi mais. damaa dem jëli Pape Sarr mu ne Modou Lo blessure bi avant signature contrat mook Ama Balde la da ko doon soxaale ba xam ni mënatuloo nekk mu doog a wax ni dafa blessé loolu lan nga ñu ci mën a indi ci leer. loolu moom amul dégg naa sax ñuy wax ne dafa demoon pour faju mais bu demoon pour faju kon fa lay toog faju ba wér quoi blessure bi foofu ah foofu li ma la wax sànq rek. waaw avant muy ñibbi à trois jours ci la blessé ci tapis waaw mais du lu du lu yàgg quoi mu mosul am problème mu épaule mosu ko am waaw. kaaw Ama Baldé ñi nga xam ne moom ngeen war a. xam nga loolu fii ko fekk fii lañ ko bàyyi ñun am nañu combat yoo xam ne war na bëre ba bu ñuy bëre Eumeu Sène ci combat bu njëkk bi dañu ba deux jours des ci Eumeu Sène dañ ko géré xam ne ndogal ndogal la yàlla bu waxee ne lii du am loolu du am loolu la quoi ne ñu xaar dal. combat bi yaakaar ne aussi métti na ñaari camp yëpp même ñun ñuy métti si ñun préparé ba mu des ay 15 jours nga am blessure aussi métti na si ñaari camp yëpp. nga Petit Lo sa doom. mi ngi fi mi ngi fi. lu mu nekk. waaw mi ngi entraîné rek <laughs> yow. gars ñu ngi wax. waaw ñu ngi wax waaw <laughs> ñu ngi wax. dina bëri. allah yaakaar naa dina bëri. ngeen dama kan nga jort ni moom mooy lamb ji. non ah non mais booy ñi ñi mu war a bëree mu neex bari na fi. mais du ma tudd benn tur ah. mais ñi mu war a bëreel ñu ngi fi te ne yow xam nga ko gënu ma la ko xam <laughs> jërëjëf. dégg naa la.